APR ci tas rek la daal di jëm ginnaaw information ba nga xam ni daal nañ koy jot muy rek ki nga xamante ne si moo di Amadou Ba bokkoon ci alliance pour la république di APR ak coalition bu Benno Bokk Yaakaar ñoom moom mooy nag la ñu daal di xamle dafa daal di décider rek daal di jóge ca boobule coalition wante ca alliance boobee ngir rek mën a daal di matal rôle am en tant que chef de l'opposition loolee nag buñ sukkandiku ci këru taskatu xibaar bii di laas daal di xam la sax ne ancien parlementaire bii di Cheikh Oumar Sy nekk jege ñaale ki nga xamante ne si moo di Amadou Ba moom moomee nag moo daal def boobule annonce ci décision ba nga xamante ne si nag ki nga xam ni moo di Amadou Ba fas yéene kaa jël wante daal na cay daal di dolli ni ki nga xam ne moo di Amadou Ba amul benn avenir ca bu loolee di APR. ba tax sax nag mu daal di bëgg jóge ca fi nga xamante ne si nag moo di APR ngir rek mën a daal di assumer posture am comme rek chef de l'opposition wante jëmu ci loolee daal nay daal di xamle ancien premier ministre boobee nag di Amadou Ba dana daal di ànd ak ñu bëri ña nga xam ni daan nañu woon bokk ci formation politique bu noo Bokk Yaakaar wante daal nay xamle kookee di Amadou Ba dina daal di mën a dajale mbooloo mu takkoo takku ci li nga xamante ne si nag ñoo daal di bokk rek ci opposition bi.